ku dig murit da ngay bëgg maam si Ibrahima Fall ndax kër boo ci dugg wala néeg da ngay jaar ca buntu ba maam si Ibrahima Fall mooy buntu bi mooy baabul muridin kenn jëfalu ko fa mu teg sëñ Tuubaa kenn tegu ko fa ndax la si Ibrahima la la ma waxoo rek mu ne sëñ Tuubaa fa ko yàlla teg man maam si Ibrahima Fall fa laa ko teg moo tax li maam kenn amu ko kon nga gis ne ma Serigne Touba doolu ku ni gam le li mu def njaarim gi defu ko ci beneen barab ba maam si Ibrahima Fall ñëwee Mbàkke ne leen ku tedd gi nee na daa bëgg ngeen teg la comme déeg ñu ko ku dem bay xam nga waa Mbàkke moom mënutu fa am dara ndax nin ko xeexe ba mu génn ñu ne ko ku dem bay teg am néeg ku dem bay tuxu mën ngaa tegal sa bopp am néeg nee na keroog kenn topp Cheikh Ibrahima Fall waaye ca yar ak teggin ya noonu la Serigne Touba ñëwee noonu la Cheikh Ibrahima Fall ñëwee Serigne Touba ne day day ni fere danoo gànt Serigne Touba ne ko mbooloo mu bari te passeefuwul mbooloo tàmbalee ci ñett rek bu buñ passeefoo rek danañ man ñi nga xamante ni bari nañ te passeefuwul ndax yàlla day way muñ rek la àndal inna allaha ma sabirin ci lañ jël mu ne maam Cheikh Anta maam Thierno Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Ibrahima Fall mu ne jàppale néeg bi ñu aj ko ci barki yonent bi ban ban ne bisimilah barki yonent bi lañ jël néeg boobee aj ko te amuñu woon doole jooju nga gis ne foofu la ko suñu borom commencé jàppale kon nga gis ne Serigne Serigne Serigne Touba moom doon na jëmm joo xam ne doy na kéema xisa boobu bi nga xam ne Serigne tubaa jël na maam Cheikh Anta jox ko nag Daaru Salaam googu ci la a xamal ne Serigne Touba fépp fu ko feneen nee na bi mu génnee nag jóge daaru salaam diggante daaru salaam ak Touba booba Touba ab àll la ay gayndee fi nekkoon ak ak rabi àll yenn yi waaye bi mu ñëwee di wër pàkku Touba daje naag rëbb bu nuy wax sëriñ boobu ja waaye sëñ boobu ja booba gisee gut ak sëñ Touba bi sëñ Touba doxee ba ñëw mbal mbal bu buñ ko waxee ñu bari duñ ko xam waaye boo ñëwee ba marché Ocass guy guy siyaar gi am lu mel ni bunt ak ab palanteer foofa moo doon mbal dafa amoon ab déeg sëñ bi mu doxee ba ñëw foofu dafa toog ca tuutiwaay ba ndax sëñ Touba dafa tuuti nee na sëñ boobu jam mooy gis ndax mooy nettali nee na moom sëñ boobu jam moom nag da daa rëbb bu deux heures jotee wala xeer yooyu yoor yoor day yéeg ci kaw garab gi di rëbb pour bu kéwéli naan ci déeg boobu mbal mu mën nee na mi ngi gis sëñ Touba bi julli jotee mu ne ñokket nee na nag li ko gën a yéem bi sëñ Touba jugee ci guy gi mi ngi fekk ci gay mi ngi fekk ci déeg bi ak gaynde guy naan sëñ Touba jugee ci guy gi jëm ci déeg bi gaynde gi naan ba mànde jugee ci déeg bi jëm ci àll bi seet leen loolu la sëñ Tuubaa jàpp ba sell lante gaynde ke te jotewun dara sëñ buuba jaay wax ndax moo ko gis mooy nettali bi mu ne cëpp ca garab ga ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma ndax boobu xamutoon sëñ Tuubaa xamu ko woon de dana ko damaa bëggoon nga ko lu tax loolu mu ne ko damaa ne ku ragal yàlla nga ndax bu julli jaralee sa bakkan bii nga bàyyi jóge guy gi nga nekk fekk gaynde guy naan te mënoon na laa faat nga ñëw jàpp jotewu leen dara am na lu tax sëñ ko boo xasee ragal yàlla lépp lu yàlla bindati da lay ragal waaye boo xasee ñeme yàlla lépp lu yàlla bindati dalay ñeme ndax yàlla moom boo ko ragalee rek lépp lu mu bind waaye boo xasee ñeme rek lépp lu mu bindati dalay ñeme mu ne ko nag ndax mën naa laa yónni daaru salaam mu ne ko waaw waaw sëñ boobu ja jóge foofu mbal googu daw jëm daaru salaam te daaru salaam boobu àll bi mel na noo xam ne ak ngeer kase la soo fa jaaree te xàmmee woo ko boo dëppee doo xam foo jaaroon bi muy dem nag di dem daaru salaam fi mu tàmbalee ba woon sëñ bi ginnaaw ba mu ko ba dem dafa jàpp ngeer bi di ko damm di ko damm di ko damm baag daaru salaam ba mu dëppee xam ne fii la jaaroon loolu la mag ñiy wax repère repère xam ni kaay ba mu dëppee nag woo maam Cheikh Anta Cheikh Ibrahima Fall ak maam Cheikh ñëw mu ne leen damaa bëgg ngeen wutal ma pavillon pavillon boobu nag eh, ban ko ko wutalee sëñ Tuubaa dugg ci biir guy gi di taalif ñoom ñu toog ndax sëñ Tuubaa nee na leen guy gi fi laa war a mottalee dalaa irul xayraati mooy ñaar téeméeri tur yi yónnent bi ak benn ñi indi ñëpp nag ñaar téeméeri tur lañ wax waaye sëñ Tuubaa nee na benn bi dafa ñëwutoon moo tax xamuñu ko te benn bi sama borom xamal na ne ma man mii la Cheikh Ahmad Bamba nee na bi mu taalifee ba pare génn ne leen Birahim mu ne ko Mbakke mu woo maam Cheikh Anta ak Cheikh leen baa li doon matte na ñëpp mu ne ko Mbakke day bi nga duggee taalif am na lu mel ni yamb lu jógee ci kaw di matte nit ñi comme matt rek nga pattamti ko sëñ leen day ah mu ne leen day jëmu ji rek la mattul waaye jëmu jooju nag ci nin ko gëstoo andiwu ko andiwut ki nga xam ne moom la tur wi yam wi màttut sëñ Tuubaa nee nañ jamono mi ngi ñëw yàlla dina ma teg loo xam ne ku ci àndak man da nga jariñu àdduna jariñu àllaaxira ndax sama borom moo ma may àdduna may ma àllaaxira malaka nii maliku dunyan wa uxra ba xam nga sëriñ Tuubaa ku yem ci njàngaleem la mu jëfe nga la mu la la mu santaane nga jëfe ko la mu tere nga bàyyi ko yooyu yëpp doo ko xam ba di ko def ndax wirdu bii muy maaxus bi sëniñ tubaa muy muriidu laahi dafa wax ne ana nam ma jëm ci suñu borom te ki ma jëm ci suñu borom doo def lu bon doo wax lu bon te doo ko jëfe waxuma laak bay gis nit nag ba di ko sàkku wala nga koy véela waxuma laak nga di ko faat ndax sëriñ Touba moom boo demee ci naajul Hadaaya xaaji yar ak teggin la fa jàngale nga dem ci Masaalikul Jinaan lépp sëriñ Touba indi na ko ndax tey boo gisee aqiru samaan ba ko Serigne Touba bindee léegi toll na ci téeméeri at wala lu ko ëpp la ca Serigne Touba doon wax jamono jooju loolu la ñuy dund ñun ndax daan waxoon na ne sàggante gi bu ñu demee ba àqiru sama jug jamono duma fi fekk nag man waaye sàggan gi dana dana dana yéeme lool dana doy waar lool waaye nag maam Cheikh Ibrahima Fall wax naan gone yi dañuy wéyee sañ-sañ euh, euh, sañ-sañu yoon wi te duñ jëf-jëfi yoon wi waaye nee na su boobaa dam de dab leen ndax nee na xambukat de yomb na waaye bu mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall day jafe la tax mu waxee noonee nag mooy jëfalee ndigal Serigne Touba bàyyi ay teram ndax Serigne Touba dafa wax ne laa tafxalu say an bi xayril ismi xoolal leen gis ci suñ jamono ji nga gis ne ay doomu aadama ñooy jàpp xale yu xale xale yu ndaw ndax gone dañ koo tudde gone waaye ku la wala doon mën naa doon ku ne ay nit jàpp leen di leen sàcc jël leen di leen yóbbu di leen faat am ñoo xam ne ay xale yu jigéen la ñuy jël sàkku leen ba pare wëlbatiku rey leen takk leen ciy saako mel ni kuy reyam xar wala viol bu bari bi wala benn ñaar ñu ne jam nañ fee nit paaka wala bennoo ñaar ñu ne rey nañ fee nit saam ko daggate ko waa loolu yi lépp ana lan woo ko la dara waralu ko lu dul alal alalu àdduna ji dong dong dong moo tax ñuy def loolu du leneen te loolu ba mu amee ba tey déggoo ci suñu kilifa yi suñu suñu kilifa yi gouvernement bi kenn ku ci wax kon loolu am na lu muy nuru duñ tooñ kenn nag duñ tudd kenn waaye boobu ba léegi déggoo kenn ku ci wax wala ku ci jël parool te jot na sëkk nag ndax lu yàlla bind doomu la ci gën a bëgg ndax déggoo mu ne wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaxbudooni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu kon bu ñu yemoon ci jaamu yàlla rek dina am solo waaye fi mu toll nii fii nga gis rey yi ak ni mu méttee nga xam ne doom ni mu neexee ci xol barki démb rek maa ngi dégg benn vocal ci whatsapp bi ñu ne am na benn waaye bu nu jàpp Tëngéej boo xam ne dafa sàccoon fukki xale ku am xale bu réer ma jàllale ko sax ndax loolu loolu am solo la ku am bu réer na nga dem foofu ci biir garde bu Tëngéej da nga fekk fukki xale ya képp kuy seet sa xale nag yàlla nga ko fa fekk waaye loolu yi wax nañ ko ba ci am na sama benn xarit boo xamante ni sëriñ naa Mbàkke mooy bàyyi sëñ talaa mu ndaw moom réer nga xam ne sëtub sëñ Fallu la sama xarit la maa ngi jàlle la waale képp ku ko gis rek li lay warasoon ngi bi sëñ Saliou ngi jëmbi sëriñ Saliou ak sëñ Fall na ñu ko indil loolu fu ma toog dama koy jàlle télé bu mu mën di doon kon dafay mel ni ñaaw ñaawteef yi nga xam ne moo nekk ci réew mi dafa doy waar torop ndax defeewuñu ko ngir alal te alalu àdduna jooju ngay nga di ko defee booy ganee àdduna doo indaale dara mais booy dem tamit doo yóbbaale dara lu dul juróom-ñaari mètre percal te gisoo fi kenn koo xam ne am na fi alal faatu ñu jël alalam suulaale ko wala ñu jël otoom suulaale ko wala ñu màbbu këram déedéet soxna ya dencoon dañ koy jël oto ya nga fa bàyyoon dañ koy jël alal ja say doom séddoo ko yow nag nga dese nga dese lan nag mooy sa paxum ba mel lu mat bàyyi xel la ndax suñu borom nee na wa kulluhum aatihi yawmal xiyaamati fardan kenn ku nekk ci yéen dinaa wéet ak yéen ba kere yowmal xiyaam da ngeen defe ne yow dong la sàkkoon balaa kenn jéggi siraan loolu nag ñu bari dañ koo fàtte buñ ko bàyyi woon xel ak tërë bàmmeel ni méttee boo xoolee ca jamono yónnent ya ba tey am na ñu tëdd boobu ba tey jóguñu ku mas a faatu rek yaa ngi tëdd suuf di xaar xoolal loolu ñaata at la ak ñaata seekal la téeméer ay junni junni siècle la mais boobu ba tey ñu ngi tëdd di xaar suñu borom am na ñoo xam ne nag gëmuñu yomal xiyam waaye ko xam ne asamaan si suñu borom moo ko fi teg jant bii moo ko ci monté weeram wi monté ko ci jël suuf si teg ko kon war ngaa gëm yomal xiyam ndax yow ma isintu addi so a baara bi anna rabbaka waxi laha ñuy jëf ñaaw téef yëg bon bon bee nag sóoraale wuñ suñu borom ba tax ñu di ko def ndax ñu ci bari bu nuy rey ni ñi wala nangam sangam am na nit ñu leen di yabal di leen ko sant ñu fay leen xaalis ñu def loolee te dara war te dara gënta ñaaw lool alalu àdduna ji tax nga koy def nag da ko won ginnaaw dugg ci biir bàmmeel waa xam nga maanaam mujjug jamono moom moom lañ nekk muy axiru samaan moo tax ku am xel te di jullit demal nga jaamu ji yàlla te jëfe ndigali sañ Tuubaa bàyyi ay tereem te wuy ci sunnaas rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax wàllu jikko xam nga àdduna soppeekuwul de fa jant ba doon xëyee fa lay xëyee fa muy soyee fa lay soyee asamaan si fi newoon ba tey moo fi ne suuf si fi nekkoon ba tey moo fi ne ndax sëñ Tuubaa bi muy ñëw dafa wax ne donte bi muy ñëw di yeesal sunnaas rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si rapport donte fekkuma ko fi tama fekk ne asamaan si moo ko doon tiim ak jant bi la may sàkku ca moom dinaa am ana loolu ñun tey kon loolu mooy waral ne jamono ji dara sikku ci jikko yu ñoo yàqu jikko yi lan war a tàggataat te defar ko te wëlbatiku suñu borom te xam ne nag suñu borom dina daje ak ñun de waaye jikko yi ci boppam ñoo yàqu nag moom ndax yonent bi li tax mu gën yàlla da ko tànn ci jikko boo demee ci alxuraan ñi nga wax naan wa innaka la ala xuluqin asim sëñ Tuubaa tënk na ko naan wa innaka la ala xuluqin asim kon jikko war nañ koy defar jikko yi rafet nag li ci li ci jiitu te gën caa baax mooy na nga bëgg lu baax bañ lu bon dafa fas tege ci yoonu siraatal mustaqim ndax alxuraan li muy rëy rëy rëy lépp li muy jàngale rek moo jub te tege ci yoonu siraatal mustaqim bëgg yàlla te di ko jaamu moytu lu bon sori lu bon doo ko wax te doo ko jëf ndax yàlla mi ne sax bàkkaar boo ko defee malaaka yi nga xam ne ñoo nekk sa mbagg daf naa la taxaw leen bala ngeen a bind xëy na xelam mën naa ñëw ba mu jéggaluwaat ma jéggal ko kon yàlla ñu gën ndax bu ko neexoon ñaawteef yi ñuy def nii tey ku ko def yàlla mënoon naa réagir ku mën na seetaan la nag waaye ak a a réagir loolu nit ñi xamul na waa loolu waaw loolu man sañ mu Touré ànd naa ci muy pende boobu su ma sañu ñu delloo si waat ko ndax dara gëntam metti ñu rey sa mbokk wala ñu rey sa rakk wala ñu rey sa mag ak ku mooy sa wala sa doom ki ko rey ñu jël ko àtte ko tëj ko benn weer wala ñaari at bàyyiwaat ko muy dox est que loolu neex na ci xol neexu ci xol kon yàlla sunu borom bu fekkente ni diine ak lislaam la ñuy jëfe ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo ku gaañ nit ñu xool fa nga ko gaañ ñu gaañ ko defoon rek rey yëpp jeex waaye ñi war a tëral loolu dun ko tëral ndax am na lu laxasu ci biir nga xam ne ñoom lan war a tànn yi nekk ci sariatul islamiya ñoom lan war a tànn ñuy doxal loolu parce que suñ su Sénégal laa wax de mboolem réewi Afrique yi ak réewi Europe yi laa la wax de ñu ci dàq jaamu yàlla senegal gisuma ko bu ñu demee yombal xiyam bu yàlla xeebee li Sénégal jaamu du am lu ko ëppale man maa la wax loolu waaw ndax suñ mag ñi ñëpp fi lañ jaar lu ne daj ñan ko tubaab yi rey nañ leen mën naa laa limal tubaab bi rey nañu bari waaye lu ci mën doon danoo wër di jëfe ndigal rek di bàyyi tere Sénégal gii liñ fiy jaamu yàlla gas néew wallahi asim bu demee yow mal bu ko yàlla xëy ba du am leneen waaw kon nag bu ko defee sëñ bi euh, waxtu wi xoj nañu euh, ñoo ngi sant yàlla di sant waa Baol Times di ñaan yal na leen yàlla jëmee ca kanam yal na yàlla def mu doon ay télévision du ma wax sax benn ay télévision mu dem ba ci Europe Afrique fépp law ba àgg fépp ñu ngi koy ñaan ndax yàlla moo ne ñaan leen may leen bu ngeen sant ma dolli kon ñoom sant nañ leen gërëm nañ leen ndax bi ñëwee bëgg suñu émission da nga ñu ko nangul kon lépp nag ci jàppalante la rek ndax taawoon alal birri wa taqwa wala taawoon alal usni wal udwaan loolu rek moo am solo kon sant nañu leen gërëm nañu leen ah, lépp nag lu jub ci kàddu yi ci suñu borom la lépp lu ci dëng ci sëñ Moustapha Touré tey siir la maa ngi koy tuub bu baax tey jéglu tey ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi ak xalifa maam si Ibrahima Fall tey ñaanal sama sëriñ nag sëñ Moustapha Gueye Yerwaay yal na yàlla yokki leeram sëñ Axma mi sama buntu sëñ Touba yal yàlla guddalu fanam maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu